mooy mooy euh, datu kii yi parce que ci la ñuy date su date catholique ñoom mi nga tàmbalee ci bi yoon ci yàlla Isa alayhi salaam juddoo foofu lañ tàmbalee di di date foofu it dinaa fa leeral tout rek ci biir biir catholique euh, parce que dafa am tamit foofu li fa am ndax euh, yahud yi mooy ñu nekk ci diina yahud seen façon ne yàqin dafa dafa jéggi dayoo vraiment ma ne boo xamee histoire da leen ragal lool di leen moytu Euh, ndax li ko tax ndax li ko ndax li ko def mooy li tax nga leen di ragal trop ñoom yahud yi yàq da leen di jaral tey mën na ñëw ñëw sax comme par exemple bu ñu ñëwoon fii Sénégal bëgg ko yàq di nga gis yahud boo xam dina ñëw nekk ci diine yaxut de may ñëw ne murid la fekk doona ko julli sax bi doon murid fekk li tax commencement bi nag di nga gis na wala mu ñëw ne tijaan la commencement di gis ne maanaam moo ciy mën liggéey tijaan bu taxe moo ciy mën liggéey murid bu taxee moo ciy mën mais li ko tax a dugg mooy yàq ñoom noonu la ñuy defee moo tax tey boo demee ci eh, parce que xam nga Sénégal diine catholique la ñuy wax mais nag diine bi tuddul catholique diine bi moom eh, christianisme mooy chrétien moom la mooy tudd diine bi ci français chrétien mais catholique benn parti la ci biir parce que ñoom bi ñuy sos seen diine bi boobu après maanaam diine bi bi ko yénti yàlla Iisaa alayhi salaam indi parce que fukki nit ak ñaar fukki ak ñaar ñoo ko gëm waaleykum loolu sax daanaka mën na wax ne boo ko ci kii bi waaye boo gisee li ñuy wax rek wax mu yéen di ak tuuti <coughs> leeral rek moo waral ñu dugal ko ci sax muy affaire comme catholique boobu mosee indi ak christianisme seen diine ñi kii diine chrétien lañ chrétien lañ ñoo mais daf ci am parti bu ñuy wax catholique sax sax mu dafa am important nag mais dafa am ñu ko sos ñoo xam ne comme dafa am ñu euh, maanaam yahudi yi dañoo ñëw intégré wu ci diine jooju ñoom ñoo protestant yi tey protestant yi ñi ngay gis seen cosaan ay yahud lañ kenn ñi nga xamante tey fii ci diine islam am na ci parti yoo xamante ni yahud yi ñoo ko fondé mais pour nga mën a xàmmee parti boobu que ne yahud yi ñoo ko créé rek da ngay gis euh, savant yi nga xam ne wala anciens yi nga xam ni diine diine boobu dañ koy dañ koo fonk lool da gis ne ñoom à tout le temps dañ leen di xas ñoom dañ leen di gurajaat waaw si nga xamee ne kon ñii ci boo ko xoolee ci diine yi rek euh, façon maanaam diine yi am muy comme diine catholique euh, diine chrétien ak diine islam xoolal catégorie yi bu dee ci diine islam xoolal catégorie ya fa nekk tey xas saxaaba yi da xam ne wala maanaam ñooñu moom dañu leen rek da nga xam ne si ngay com da nga comprendre waaw loolu ma taxabal ko ci rek noonu lañ mas mel bi nga xamante ni nag ñoom tasaaroo nañ ci àdduna euh, fa ñu gënoon a ëppee nag mooy côté Amérique waaw côté Amérique du nord yooyu noonu côté yooyu la la ñu ëppee woon fekk boobu créé nañ seen benn état bu ñuy wax euh, yahud saxnuuniya yaakaar naa moom la ñuy wax saxnuuniya mooy sionisme sionisme xawma sioniste daal ay ñu jàng français mooy saxnuuniya euh, ci lañ créé seen seen seen seen diine boobu yahud euh, mooy diine yahud diine juif sionisme ci lañ ko créé nag pour dawal ko ñu foofu nag lañ euh, ci Amérique foofu en mille huit cent quatre-vingt-dix-sept ci lañ njëkk amalee seeni congrès fële ca Amérique maanaam tey Amérique diine moo fa jiitu waaye ña fa jiitu ña fa dugal waaye nag diine catholique moo fa jiitu ña ko fa dugaloon mooy protestant yi tey jii nii boo demee ci protestant yi li tax mu gën leen si tudd sax ñoom dañoo gëm ne waaw protestant yi ñoom ñoom Euh, euh, ñoom euh, protestants yi ñoom dañu gëm ne pour yonent yàlla Iisaa alayhi salaam ñëwaat parce que tey protestants yi ñoom dañu kii sax ci ñoom ak ñoom ak kii bi sax jubóowuñ Trump fi seen kii bi nekk ñoom dañoo gëm ne pour yonent yàlla Iisaa alayhi salaam ñëwaat haykal boobu nekk baytul maqdis nga xam ne tey jii nii moom la waa israéliens bëgg delloowaat te amaat ñeneen ñu laxasuwaat ci suuf ndax it ñoom it seen intérêt da cee ne danaa ko dana àcc ñoom dañoo gëm ne te waxikal boobu yonent yàlla Suleymaan moo ko fa ñoom dañoo gëm ne fekk dekkalaatuñ ko rek yonent yàlla Iisaa du ñëwaat alayhi salaam du wàccaat xam nga yàlla daf ñu wax ne ñu ci alxuraan yonent yàlla Iisaa dina ñëwaat mu jóg jamono yonent bokk ci xadis yu wér ñoom dañoo gëm ne loolu fekk samput du ñëwaat moo tax yahudi bi ñu dal bi ñu dajaloo foofu da xool nan lañuy defee système pour mën a delluwaat ci seen réew xam nga Palestine nag wax dëgg yàlla seen réew la xanaa kay dafa ko dañ ko jaaree nag ci anam boo xam ne kiwit nag waaye ñoom ak arab ya nekk ñoo ko bokk moom ndox seen réewam maam na waaye nag ñu jaaree la moo tax pour naka la ñuy delloo waat pour mën a jëlaat euh, baytul maqdis muy Jérusalem moom ko nan la ñuy jaare foofu lañ tëralee congrès boobu pare protestant yooyu jàppale leen ci mais boobu xam nga comme réew ak Palestine dafa réyoon na ñoo rek débarqué foofu noonu moom du day xaw a métti seen intérêt des parents boo xam ne dañ fay dem euh, nekk fa kii nuñ koy waxateeti comme immigré ñu daal di fay immigré na daal di fay immigré euh, noonu lañ fa immigré xam nga loolu mu ngi am ci mille huit cent quatre-vingt-dix-sept ba bi ñuy demee ba ay vers ba ay mille neuf cent seize yooyu noonu ci la ci la ci la ci la Britanniens yi ak euh, français yi mm, nga xam ne daal leen di euh, kii nii nañ koy waxatee yilif moom leen bi nga xamante ni nag yilif nañ leen euh, moom leen ci ay mille neuf cent yooyu noonu fekk boobu ñoom yahud yi dellu si waat nañ ko ngir nu ñu amaatee doole wala nu ñu moomaatee Euh, bi ñu fekk bu laata boobu nag peuplé nañ fa maanaam sakkan nañ fa lool ci lañ révolté woon nag di xeex ak arab fa nekk nga xam ne tey ñoom ñooy jullit xam ne tey ñoom ñooy jullit yi nga xam ne ñoo ñoo yilif jamono yooyu boobu ndax bu fekk ne diine islam dugg fa ba ña fa nekkoon ñëpp doonoon ay jullit euh, ñoo ñoo ñoo ko yilif ci euh, jamono yooyu nag ay bi guerre bi métti woon lool ba nga xam ne laaloon nañ ci arab yi ñu xaw a sakk ndax euh, arab yi te muy julli ñi ni ma ko mën a waxee dañoo xaw a teel parce que tey réew yu bëri ñoom bokk nañ dafa jiitu waaye dem nañ ba tey parce que tey Espagne yii ñi eh, arab yi ñoom ñoo ñu ko ñoom ñoom ñoo ñu ko jiit ñoom ñu ko jiit waaye te diine islam mooy li fa jiitu waaye tey fi mu da ngay foog ne sax diine dafa dafa Moustapha Diar sax waxuma laa booy jiitu maanaam comme affaire u arme wàllu adduna daal comme di niñ xawuñ kii ndax comme tey Palestine seen xeex bi ni yàggee te ba tey mënuñu am arme nga xam ne comme dañu xaw a tayal nag waaw ba 1917 nag ci la ci lañ ci lañ leen defalee leen benn foyer national moom juif yi foofu foofu ci Palestine benn foyer foofu ci Palestine ñu defal leen ko ñoom juif yi waaye loolu moom mos a nekk seen objectif ñoom seen objectif rek mooy jël Palestine moom ko te la leen gën a soxlaal ci Palestine ñoom tey ji nii ku leen joxoon Baytul Maqdis sax mën nañ leen a bàyyi suuf sax Palestine Baytul Maqdis bi leen jox ndax mën nga amee rek eh, danañ ko am danañ ko kii noonu ci noonu lañ nekk ba bu ñuy demee ay mille neuf cent trente six jàpp trente neuf euh, ci la nag résistance euh, britannique bi ak juif yi euh, amee nag mu diire plus de six mois xam ne diire na ko waaw fekk boobu euh, Britannique yi ñoom ñoo yilifoon Palestine euh, biñ demee ba ay mille neuf cent quarante sept nag euh, déedéet quarante six ci la Britannique yi jëlee Palestine ay quarante cinq yooyu noonu bi après guerre mondiale bi mu jàllee rek ci lañ ñoom jële dal di koy daal di jëlee Palestine na teg ko ci loxoy ONU parce que ONU yaakaar naa c'est fondé en mille neuf cent quarante quatre motuma quarante cinq en octobre daa ko fondé li ko li ko li tax ñu créé ko ñoom it euh, pour yilif àdduna rek loolu moo waral nouvel ordre mondial loolu it ñoom kii dañ cee am wàll yahudi dañ cee am wàll euh, création l'ONU boobu tamit organisation des nations unies ñoom dañ cee am wàll ñoom yahud yi dañ ci am wàll ndax li leen tax a jóg yahud yi leen tax a jóg mooy moom adduna ndax avant ñoo ko moomoon waaw maanaam ñi doon yilif adduna yëpp buur yi doon yilif soit muy buur soit muy yénant si ñoom lañ doon bokk ñu doonoon xeet bi nga xam ne ñoo yilifoon euh, seen ak caay-caay dem ba yàlla jëlee ko ci ñoom dénk ko ci arab yi ci ñeneen loolu euh, loolu naqari leen woon lool lool lool lool lool lool waaw loolu mën na naqari ba moo tax tey ñu jugaat ak doole moo waral ay ONU yëpp loolu amee nag ah, bi 1947 ci la waa ONU daggee Palestine wàll gi ñu jox ko Israël xam nga boo dem dama nettil ci gannaaw njëkkoon nañ koo dagg ci jamono yent yàlla ah, yent yàlla Daawuda alayhi salaam bi leen benn lee ba ci yent yàlla salaam xam nga njëkkoon nañ ko bi Daawuda jàlle ni Suleymaan jàll te doom ñu ne woon dafay jël ñu ne du xam nga daggoon nañ ko fii deuxième dagg ñëwaat na si la ko uñu daal di xaajee nag lii mu jox ko Palestine lii mu jox ko Israël mais xaaj bi dafa dafa def xaaja tay jaay mu defee loolu baytul ma fi baytul maqdis nekk muy Jérusalem moom mu ne euh, def ko lu ñuy wax mbaa yàllal teg ko fi ni adduna bi ñëpp ko moom moomu ko te effectivement sax euh, loolu mooy dëgg tey mi ngi mel ne Makka Kaaba ga fa mu nekk adduna bi ñëpp ko moom mais nag ña fa euh, comme noonu la yonent yàlla daaw de defoon sax mu leen bi mu boolee giitu banu Israël yëpp seen famille yëpp def ko benn dafa tegoon jàkka ji ne ñëpp ko bokk mooy jaamukaay yaa jaamukaayu yàlla la. effectivement sax loolu partage ñooñu ñu bëri na naan foofu partage dëgg na mais effectivement loolu mooy yoon tey baytul maqdis ñëpp ko moom ñëpp ko moom mooy kuy muy jullit ñi waaw maanaam nit ñëpp ko moom mais nit bi buñ ko waxee mooy jullit. parce que comme jàkk la te xam nga jàkk jullit ñee ko moom mais tey ñoom bu fekkoon ne banu isra yahudi waa israël gi israéliens yi bu fekkoon ne nangu nañ ñoom tey même islam négocier ak islam may na boo dëkk koo xam ne gëmut la ñu bëgg seen ay kii man ne te amuñ fuñ comme seen daje amuñ fuñ ko defee woon te te daje gi nekkul lu xaraam nekkul loo xam ne jëm ci lu xaraam la yu mel noonu may ci biir jàkk yi ubbil leen ngeen yeneen ci histoire yi yonent bi sallallahu alayhi doon ko defak lenn ci yahud yi yim nekkuloon Medina am ñu ne sax noonu li taxoon nag mu koy def boobu amagutoon doole foofu Medina parce que bi mu ñëwee bees dafa signé woon benn protocole boo xamante ni pour négocier rek ngir mën a mën a mën a mën a mën a am am doole. bon voilà mi ngi noonu loolu loolu moo ci nekk dafa am kii loolu même loolu sax alquran mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy nettali keroog diine nasaraan yi bi ñuy fondé seen diine bi nañu ko fondé woon waaw moom lay nettali ci suratul euh, dafa xaw a gudd xiisa bi euh, waaye dañu bi nekk ci benn histoire loolu boo ko ay mën na xaw a jël taa tuuti euh, fi muy ba fi muy waxee daan waxaalu inna allaha salisu talatin wa min ilahin waaw ila waxaalu inna mooy catégorie bu ci nekk rek ni nga ni nga jàppee ne noonu moo noonu mooy yàlla parce que tey protestant yi ak catholique yi seen gëm-gëm bokkul te boo demee ci catholique ñoom dañu gëm nañ ñett yàlla am maanaam tey fi fi fi ñu teexalikoo nag mooy protestant yi ñoom ñoom dañoo gëm ñoom gëm nañ carrément xam nañ carrément parce que loolu lay gën a xamal ne ñoom ñooy yi parce que yahudi ñoom ñoo xam gën a ñoo gën a xam lii dëgg dañ cey teg seen tànk euh, ñoom xam nañ ñoom gëm nañ ne yonent yàlla Iisaa maanaam ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu salbu noonu mooy ki ñu dàcc dénk bi ñoom xam nañu dañoo caale instant gëm nañu dañoo caale instant yàlla daf ko ñoom dañoo gëm ne ki ci mooy différence ñoom ñoom ñett yàlla lañ gëm euh, protestant yi ñett yàlla lañ gëm waaye ñoom yonent yàlla instant alayhi salaam euh, kii euh, gëmuñ ko amoon na beneen catégorie beneen ñetteelu xaaj ci bañ koy xaaj ba ñuy xaaj seen mais boobu après islam moo ko moo ko laabal. parce que ñun dëgg rek lañ doon wut ñoom dañoo waxoon ne yonte yàlla instant moom mooy jëmmi yàlla dafa ñëwoon ci kaw suuf am mission yi mu doon ndox mission yi jeex muy yéegaat ñooñu moom fi mu ne nii existé tool parce que bi islam ñëwee daf leen a rappelé wala bu existé ah, euh, xaw seen entre parenthèse daa ko ci doon def rek. waaye ñoom foofu mooy seen origine xam nga ñoom foofu mooy seen origine mooy seen origine même diine ji foofu la foofu la foofu la cosaanoo parce que. Euh, si diina yonent yàlla Moussa lañ wax na ci lañ nekk te yonent yàlla Moussa xam nga palestinien la foofu la dëkk euh, bu juddoo Misri it cosaanam Palestine la comme ni ngeen mel ne Yaasin Arafat mii nii xam nga Égypte la juddoo waaye cosaanam Palestine parce que li ko def mooy li ma la wax mooy empire yooyu parce que même après empire Ousmane yonent yàlla Ousmane alayhi salaam yonent yàlla Ousmane dafa am ñu ñoo xam ne dañoo askanoo ci moom tuddee seen bopp Ousmaniya ñu tuddee seen bopp Ousmane biñ so biñ leen songee euh, tasaare woon nañ leen ñu tasaaroo ci àdduna loolu it bokk maanaam comme ñoom dañu tasaaroo ci àdduna bi moo tax waaye nag ci euh, diine yahud lañ wax ne ci lañ ci lañ nekk. ci diine lañ wax ne ci lañ nekk waaye nag dañu tasaaroo ci àdduna ñoom ñoom ñoom si waaw looloo tax mais ba tey comme ñi dellu si foofu noonu ci ci ci lañ ci lañ ci lañ bokk. Euh, quarante-huit boobu nga xam ne ci la ko ci la waa UNIP euh, xaajee dëkk bi mooy dafay partage bi mooy jox li isra israélien parce que ñoom ñooñu benn xeet la waaye ñoom dañoo comme li ñuy ñor di moo tax tey euh, te xam nga bu ñu Israël Israël seen maam la seen maam la même ñu nekk Palestine Israël seen maam la mooy ci yàlla Yaxuuba nga wax naa ko ci commencement ba ma def ma résumé ko rek pour mu gën a mën a keleer clair yonent yàlla Yaquba alayhi salaam moom moo jur mboolem yahudi moom mooy seen maam moo am fukki doom ak ñaar fukki doom ak ñaar yooyu doom bu ci nekk rek da ngaa euh, giir léegi nag ñu tasaaroo ci àdduna ki giir yooyu li waral yahud daf ci amoon benn doomam bu tudd yahud yahuza yahuza waaye arab moo naan yahud am doomam bu tudd Yaxuud moom moomu nag li ñuy wax daf ci gën a xaw a gën a siiw euh, ñu ñu ñu leen di delloo ci ci ci seen maam boobu rek mooy Yahud ndax euh, seen diin diine bi dafa tuddoon huudu ilaa rabbikum dellu ci dellu leen ci seen boroom ci làkk ibraniya làkk làkk Yahud làkk yi la mooy euh, doon même même arabe sax waaw même arabe arabe sax arabe arabe sax waaw euh, parce que yahuza mooy arabe bi mais yahud mooy yahuza mooy ibraniye bi mooy làkk hébreu bi hud bi mooy làkk arabe bi moom li muy tekk mooy dellu ci seen borom ñu leen di askane ci seen maam boobu maam diine la léegi nag tey euh, mu am euh, ñu tasaaroo gi ñu tasaaroo ci adduna bi ñu dellu si waa bi ñu dellu nag fële kii nuñ koy waxatee sax Euh, Israël ñoom bi ñu dell bi ñu ñëwaatee foofu ñoom dañu doon réclamer comme wane ne ñoom ñooy descendant seen maam boobu di Israël ak ne ko seen bopp ba bi ñuy euh, partagé fekk bu Palestine moom tuddoon na Palestine ba bi ñuy dagg réew mi léegi nag ñoom ñu tuddee seen wàll seen maam boobu muy Israël mais même ñu dëkkee Palestine ci lañ bokk waaye nag ñoom la leen taxoon a jóg moom laa doon wax noonu mooy bi ñuy jugee ko Amérique pour dellu ci Palestine la leen taxawoon a jóg parce que ñoom boobu ñoom ci diine yahut lañ nekk muy diine juif ci lañ nekk seen ah, yéene bi leen tax a jóg yéene boobu moo tax ci mboolem kuy julli tey war a jóg jàppale waa Palestine. parce que ñoom tey seen moo tax tey histoire bii nii lenn rek mooy li ko mën a euh, li nga xam ne mooy moo koy mën a mooy tax histoire bi mën a jeex mooy foog état islam état islamique moo tax boo xoolee Yaasir Arafat doon ci xeex xeex bu am solo. parce que moom lam lam doon xeex mooy fexe ba benn le jasiratul arab mooy état arabe bi mu fexe bañ doon benn parce que buñ doonee benn su boobaa ñoom loolu muy mooy mën a dindi lii ndax affaire ñaari diine yu xeex la ak ñaari xeet yoo xam ne ak ñaari ak benn famille mooy mooy li ñuy wax doomu baay affaire doomu baay la. affaire doomu baay ndax Ismaayil ak Isaaq ay doomu baay lañ ñoo bokk benn baay affaire doomu baay la affaire doomu baay moo indi moo indi histoire boobu noonu. léegi nag lii nga xam ne moo gën a yokk li ñuy wax moo yokk ci xarmi karaw moo mooy tey daf waa uni nga xam ne tey ñu ko fonde mooy franc-maçon yi daf ngi juddoo ci diine yahudi nekk ci diine yahudi ci le franc-maçon nag juddoo ñoom nag tey ñoo nekk di xambu ñu wax xambu taal bi ndax euh, pare Souleymane yonent yàlla Souleymane boobu alayhi salaam ndax tey franc yi maanaam euh, li ñuy wax ku ko gëstu rek mooy mën a xam dëgg-dëgg ñoom it seeni i liggéey euh, ci wàllu asraar ñoom teen lépp ci la ñuy liggéey ñu bëri dañoo foog ne bi mu juddoo yaagu daay yàgg na parce que ñoom même si jamono yonent yàlla Suleymaan si salaam ndax yahut yi wàllu wàllu baatin yàlla de leen ci mës a may mën a mës a mën a may moo tax mboolem yonent bu mu doon yónni ci seen biir rek. Euh, parce que wàllu wàllu njabar moom la euh, ñoom façon bi ñu koy defee moom la arab bi wax sixru muy njabar ñoom dañ si mës a mës a am xam-xam moo tax yonent bu yàlla ma di si koy jox moo ci sat boo xamante ni ci fànn boobu lay jëm dafay xaw a mel lu laal njabar te du doon njabar loolu tax nag même yonent yàlla Suleymaan si mm, jamonoom nag dañoo xawoon a am doole ba demoon ba ñi nga xam ne Euh, maanaam peuple bi doon xaw a jaaxle ndax Souleymane moo ne ci dëgg voilà moo tax yàlla di ko tontul foofu ne wa ma kafara Souleymane waaye nag walakinna shayaatiina kafaru yuallimuuna an-naasa ash-shahr ñoom franc-maçon yi boobu franc-maçon yi ñoom la doon wax ñoom boobu lañ judd waaye euh, comme histoire yi am ci kii daanaka seen waaye bi am ne daal ci lañ sampoona pour mën a euh, doxal adduna mooy jamono bi ñuy sos waa ONU muy organisation de nations unies boobu ñoom nag ñoo ngemb tey israéliens yi nga xam ne ñoo jóg pour nangu ci Palestine waaye li ñuy wax euh, xaw ma nu ko olof di waxee euh, kuy rey say noonu waa say mbokk ñëkk jeex nit ki bu lay jaar euh, jëm jëm utu la day seet ki li gën a jege léegi nag ñoom ñu jaaree ci ñi nga xam ne ay mbokk lañ te ñu dëkkay Palestine ngemb leen nekk ci seen suuf di leen parce que même ci américains yi tey ñoom ñoo doon ñoom ñooy former israéliens ñoo leen di jox arme pour ñu daal ci Palestine parce que tey euh, palais yonent Yàlla Suleymaan boobu euh, dañ ko bëgg a dekkilaat ñoom tey jii sa franc-maçon nañ dëkk tey bu ñu jotee Palestine maanaam euh, architecte lañ koy wax yaakaar naa mooy boo bëggee ki ngay ki tey ñoom tracé nañ bu ñu jotee Palestine baytul maqdis naka lañ koy rëddee ba nga xam ne tey seen palais foofu lay nekk dañu ne palais yonent Yàlla Suleymaan bi alayhi salaam moom lañ bëgg a déggi dekkilaat ndax dafa am benn rôle bu muy joué ci ci seen wàllu asraar daal wàllu numérologie yooyu noonu boo xoolee ñoom ci tey musalas bi ñii taaliba daar yi def franc-maçon yi ko dàq foofu sax kuy déglu sax waxtaanu Cheikh Tidiane si Al-Maktoum da nga gis ak moom la ñoom lay wax xafaarit ba léegi mën a xafaarit ci waxtaan bi xamal ne euh, ñoom la ci nam dañu am dañu yàlla dalee na jaye parce que seytaane la ñuy liggéey te seytaane dafa am pouvoir moo ko ñaanal yàlla yàlla may ko bi azzatika laqudanna lahum siraatakal mustaqim moo tax même méthode bi nit ki di jaar pour àgg ci boromam même méthode bi nit ki di liggéeyee musallas bi nit ki di liggéey baatin même méthode boobu ñoom tey français moom la ñuy liggéey moo tax tey ñu bëgg nangu foofu loolu ñoom nag tey ñoom ñooy ngembo palestiniens yi nii moo tax tey pour affaire bi mën a jag foo foo foo kii nuñ koy waxateeti état islamique taxaw wax jàkkaarloog waa ONU ak États-Unis d'Amérique ne leen hey génnee loxo ci mbir mi ñoom bu ñu génnee seen loxo ci mbir mi gis nga lay lay mën a tax histoire Palestine jeex dañ leen oo ci taabul oo ñu toog te maam bu mu doon sax ay politiciens seet fa seen borom xam-xam yi seet fay seen borom Palestine seen borom xam-xam yi Israël seen borom xam ñu dugg ñoom ci néeg waxtaan ak ñoom waxtaan rek moo koy mën a jeexal ndax affaire de doomu bàyyi la. voilà mu ngi noonu eh, loolu mu waxoon comme ci sortie boobu dëgg la mais xam nga euh, <laughs> dafa rek lu ci xaw parce que comme bon. dafa am jaxawoon a bërëxër rek ma bañ a wax dugg foofu ah, waaye loolu la affaire doomu baay la mais Palestine Israël Israël bi yëpp affaire doomu baay la ak xëccoo waaye nag tey israéliens yi dafa am ñu leen ngemb maanaam tey israéliens yi bu fekkoon na ñoom ci diini islaam dañ nekk kon mbir mi du métti mais problème bi mooy ñoom dañoo nekk ci diini islam xam nga comme tey ñun côté jullit ñi xam nga léeg-léeg ma dégg ñu naan américains yi wala waaw Nations Unies dañoo naafiq la mu tax ñu seetaan lii de naafiq wuñ dañoo bokk ñoom diina ñun jullit ñi kay ñoo ñoo de maanaam lii espèce guerre la rek comme li ñuy wax guerre mi ngi mel ne jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam bi mu taalee guerre ak ñu dul jullit xam nga tey ku toogoon fee di seetaan ñaari mën boo jugee bay sot boo dee jullit kay yonent nga doon sotle loolu moo am fii rek tey jullit ñi ñoom ñoo war a ranger wu ci kaw ci ginnaaw Palestine mais nag foofu eh, eh, États-Unis dañ ko réussir parce que avant dara di am rek dañoo fexe ba état kii état islamique yëpp ñu fexe ba yilif leen dañoo fexe ba état islamique yëpp ñu fexe ba yilif leen tey daanaka mën naa wax ne état islamique bëri yoo xamante ni nañu def mooy dañoo fexe ba ka fay toog. bu mu doon bu mu bu mu doon bu mu nekk ci diini islam wala même bu ca nekkee fekk na ñoom moom nañ ko bari seen taalibe la ba pare noonu lañ yàq état islam yu bëri tey boo demee euh, Màkka Gële Màkka Gële ka nga xam ne moo fa nekk di yilif nii tey yahud ah, la ci deret yahud la ci seen deret ci ñoom la bokk ci famille boobu la bokk ci famille juif la bokk euh, bañ a tudd Israël nga xam nga kii comme li jëli ay ay <laughs> mu ngi noonu dafay xaw a foofu moom dafay far li ñuy xaw a sensible fële ca màkk tey eh, ah yahuud yi bañ fay bañ fa duggee yàgg na di commencé fay yilif ah, te arme lañ fa duggee xam nga màkk ña fa doon yilif eh, descendant yi yonent ti alayhi salaatu wasalaam mais tey màkk boo di sëtu yonent ñemoo koo wax ñemoo wax ne sax man yonent sëtu yonent laa fële ca màkk alayhi loolu taxoon moo taxoon ñu bëri Afrique parce que bañ fa duggee doo leen sonal loolu moo leen génnee daanaka moo tax tey surtout yonent mu mel na ay Afrique Irak maa ngi gëm sax Afrique Bagdad xanaa Bagdad sax si Irak la ñu xaw faa bëri parce que après dañu voilà dafa am lu ko waraloon yahudi noonu lañ maanaam dañoo fexe war boobu moom état islamique yi moo tax tey bu ñu songee Palestine doo gis benn état islam bu wax mais lu rek mooy lu koy mën a sauver génnee ci loxo Amérique su ko defee ñu ñu waxtaan ñu xool nuñ mën a dëkkee ci dëkk bi en paix mais nag li problème bi mooy tey comme israéliens yi nekkuñ ci diine islam bu fekkoon ne nekk nañ ci diine islam voilà parce que tey même ci biir Israël xam nga am na ay palestiniens yu fa nekk ñoom ñi ngi jàmmal ak yahud yooyu nekk fa <laughs> am am palestiniens yu fa nekk mooy am na ñu nekk diine islam yoo a ñu nekk ci diine islam te nekk foofu ci Israël ñoom it guerre civile am na ci biir Israël foofu sax dafa nekk histoire boo xam ne euh, man dama ne damay damay ragal sax ñaanu ko yàlla waaye. li ñuy wax boo xam ne histoire bi daal li nga xalaat da nga wax ne sax est-ce que duul ne parce que tamit membre yi nga xam ne yonent bi doon na ko wax mu jóg jamono yu si bëri feeñ yu si bëri yu si bëri mi ngi feeñ te waxoon na ne ne lay tax ay daj ak yenn yooyu conflit bu mag dina am ci diggante saa bi ba baytil maqdis dana mabbu kaaba gi waaw euh, Israël bi daal euh, loolu moom moo ci nekk li ko sos moom mooy affaire famille la doomu bàyyi yooyu noonu moo ko sos mais dafa dem ba ci biir ay noonu islam dugg ci nag am niñ faral ñoo xam ne ñoom ak ñoom ñoo bokk diina euh, ñoom ak ñoom ñoo bokk diina noonu lañ def rek am tey ñaanu ma ko yàlla mais xam nga loolu sax ci biir Sénégal gii nii commencé na fi am. alquran xam naa ci am ñen ñoo xamante ne tey comme jéemoon nañ jéem a dugg ci ay tarixa nangam pour ñoo xamante ni membre fondateur lañ ci tarixa boobu bu mu ne membre fondateur mooy tey doom lañ wala sët sët lañ ci tarixa boobu di leen euh, di leen financer pour ñuy dal ci beneen tarixa bi xam nga yooyu mooy conflit yooyu noonu la rek tey jii ne nag waa ONU ñoom dañoo làqu ci gannaaw eh, yahud yi nekk Israël ngeen mën a moom Palestine soo ko defee suñ moomee Palestine rek dañuy daldi eh, tëral seen eh, état yahud nag maanaam diine yahud lañ bëgg mu dellu si waat wax ji yëpp loolu la rek delloo tëral diine yahud te diine yahud boobu moo ngemb tey franc-maçon yi te comme dañoo wax ne nouvel ordre mondial foog ñu am base maanaam suñu base suñu wut parce que tey boo demee ci diine islam base ba mooy màkk. fa lañ fa ñu ñuy fa la ñuy defee prélin xam nga aj fa la ñuy aji bu ci diine christianisme base bi mooy Rome donte fa base bi du Rome base bi du Rome de base bi diine christianisme Palestine la fa la yonent yàlla instant kii waaye nag comme boobu Rome ñoo leen yilifoon euh, waaw moo waral diine ji dem fële Rome moo ko yóbbu Rome mais Palestine la waaye nag <laughs> Rome la nekk <laughs> euh, bi ko defee nañ koy waxatee ñoom fi ne nii dañoo muy miir boobu muy miir la lamentation boobu mooy xajarul bukaay maanaam xaayitul bukaay lañ koy wax xaayitul bukaay loolu moo indi woon polémique bàkka beeg màkka bi dafa wax bàkka waaye bàkka ak bukaay nag bokkuñ xarwaay li ñuy wax istiqaar moom ci ci grammaire arabe moom nga koy teqale bokkut ak xarwaay albukaaw mooy firi jooy bàkka bi li muy firi mooy ku ñu ci loos nga rëppeelu da tax màkk bi tuddee ko bàkka mooy ku fa dem tërëxlaayu ku fa dem daraja joo mën a mën a amit da ngay simeeku mooy tërëxlaayu war ñu tuddee ko bakk fi nga xam ne ku fi ñëw xamatul daraja parce que ca jamono laata islam bi ñëw yaay bu neen aj màkk yaramu neen lañ daan def islam moo ñëw comme dina civilisation la ñuy tërëxlaayu bañ xaw bañ xaw ay feeñ euh, léegi na tey ñoom mooy yaxajurul bukaay mooy xaayitul bukaay boobu ci arabe France bi ko am mi de lamentation Euh, tey boo tey boo xoolee sax yahud yi ñoom foofu la ñuy dem di di di di di di di def seen jaamu ñoom foofu seen jaamukaayu yàlla la foofu la ñuy defee comme seen seen bërëbu jaamukaay daal foofu la ñuy mës di jullee benn miir la euh, boo xoolee ci kii si euh, carte géographie boo xoolee ci télé bay wax di ko gis ci ci ci soow soow ji la nekk ne benn miir la ñoom tey jii foofu lañ bëgg a moomaat su ko defee def ko muy seen base muy franc-maçon yi day gën a jëmmal su boobaa seen diine ji dina gën a mën a am doole parce que ba tey ji ni franc-maçon ci làqatu lañ nekk ndax am na ci yoo xamante ne boo ne la franc-maçon laa moom mooy tey nga dee da nga koy nebu moom loolu moom mooy loolu waaw loolu nag lañ bëgg mu jeex moo tax ñu ngeen bu Israël yi moo tax kuy xaar waa uni wax ci wala États-Unis d'Amérique da ngay nax da ngay nax sa bopp rek waaw da ngay nax sa bopp rek te kuy xaar Arabie saoudi wax ci da ngay nax sa bopp rek état bii nekk Arabie Saoudite mooy mooy ay euh, waaw damay bañ ndax damay bañ mën naa xaw a ko wax xëy boobu nekk fa feeg ñi ngi nekk Arabie Saoudite dañ ci mas a wax Irak seen pion moo fa nekkoon muy Saddam Saddam Hussein euh, tey kañu pandr noonu noonu cité na du Saddam Hussein du Saddam Hussein ci boo demee ci histoire yi nga xam ne boo gëstoo histoire yi nga xam même ci histoire euh, man gis naa ci gis naa ci histoire ba gis ay documents yoo xam ne kii ñi euh, waaja ki sonaloon yahud yi fàtte naa sax tudd histoire moom it sonaloon na yahud yi lool ah, bokk na ci ñu wàññi yahud yi sax moo tax ñu ñu néew ci jamono waaye ñu fi ëppoon ci àdduna muy waaja waaja rek man moom dama koy gërëm sax bu doonoon lim doonul jullit sax dama ko mën a ñaanal waaye dama koy gërëm sax Hitler Hitler Hitler Euh, après bi guerre mondiale bi jeexee si euh, document yooyu man gis naa ko sax dem na ba euh, gars yi dañ ko rawale yóbbu ko fële si côté Argentine benn île bum fa amoon nekk na fa dund na fa vingt ans après nee nañ dund na fa vingt ans après waaw tey jii nii fi mu ne daanaka Erdogan moo ci des te Erdogan moom kese ko koo résoudre lim mën kee xanaa mooy lim def nii rek. maa ngi dégg gars yi ñu ngi naan sax même Sénégal waruñ ci wax en ah, kay tey bu fekkoon ne état islamique yi ñi leen jiite am ay jullit lañ dëgg-dëgg di jullit mën nañ cee wax su boobaa ni ñuy def mooy foog état islam maanaam ñoom ñëpp buñ bindee bataaxal rek yónni ko ONU euh, loolu maanaam mobiliser wu daal ànd xeex la suñuy mbokk loolu rek moo ci mooy moo moo mën a nekk problème lu ko may du du du du kii. Ah, ah xam naa ñu yemale ko foofu incha allah eh, di nuyu ñëpp di leen ziar te di jégalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ah, dafay mbir moo xam ne moom daanaka <laughs> dafa li ñuy wax rek dafa xaw a ci waaw mm-hmm. ah, loolu te dafay xamee bari am lees waxul na rek am nga mm, mbooloo moom neexut a neexut a waxee ñu ngi jégalu nag bu baax a baax a baax incha allah yemale ko foofu rek. Uh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Jabel jërëjëf aussi euh, professeur Abdoulaye Ndiaye ci exposé yu am solo yi nga xam ne def ngeen ko tey ci conflit israélo-palestinien ngeen defal ñu rappel historique bu am solo dama doon xalaat ni professeur d'histoire et de géographie bi amaana mooy ñëw si rappel historique bi waaye nitu diine ki kat ñëw na ci rappel historique remonté ko yaakaar naa ba mu gën a sax sori fi nga xam ne fa la historien bi tàmbalee waaw kon loolu day wane ne yéen maîtriser ngeen bu baax sujet bi ñu leen jox ak thème bi ñu leen jox ngeen indi ci lu am am solo wax dëgg yàlla kon nañ ñi leen di sant bu baax ci turu daayira génération soppe Serigne Samba yi yaakaar naa tey ñu bari li leen lëntoon ci xeex bi nga xam ne mooy dox diggante Israël ak Palestine lu bare bari leeral nañ ko ci xam naa li ma ciy tënk rek te tënk bi loolu mat a jàpp mooy comme ni ko Serigne Jabel Ka waxee Israël ak réew la yoo xam ne ñëpp a ko bokk waaw rawatina foofu nga xam ne mooy Palestine israéliens yi ak palestiniens yi yëpp ñoo ko bokk ndax dafa am bërëb bu fa ne muy Jérusalem diine yëpp bokk ko wala boog ñetti diine ñoom ñëpp bokk ko mu nekk benn lieu sacré wala lieu saint boo xam ne kenn ku ci ne da nga am sa sa wàll li ci gën a doy waar nag mooy dañoo bokk benn maam maanaam dañoo bokk benn maam moo tax souvent ñuy wax ni conflit bi am conflit doomu baay la waaw muy Isaax Isaax ak Isra ak euh, Ismaïl waaw ñu nekkoon ay doomi baay moo tax souvent bu mbir mi xewee da ngay dégg Idrissa Seck am na jamono waxoon na ko fi ba mu fiy wax bàkkaam jéeg màkkaam jooju doon wax ne mbir mi moom li tax mu xaw a doy waar euh, mooy conflit doomu baay la li koy régler du xeex comme ni ko sëñ Jabel waxee indi ko professeur aussi indi ko li koy régler du xeex li koy la moom yaakaar naa discussion lay doon autour d'une table toog waxtaan ba juboo ba tënk waa c'est dañoo bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo ndax Jérusalem googu nekk objet de toutes les convoitises ñoom ñëpp ñoo ko bokk te mënuñ koo séddoo kenn mënu koo jël tey ne da bàyyi sa morom kon yaakaar naa solution bi ci mën a am rek tey mooy li ko ñëpp waxee rek mooy toog autour d'une table ñu waxtaan ñu waxtaan waaye booy xool Palestine am nañ ñaari composante yëpp am nañ branche boo xam ne ñoom daanaka dañuy waxtaan ñoom la ñuy wax waa waa bokkul ak waa Hamas Hamas ñoom ñooy waa Fatah ñoom ñooy waa Fatah jamono ji Mahmoud Abbas moo ko jiite am na jamono Yasser Arafat moo fa nekkoon am beneen parti boo xam ne ñoom la ñuy wax waa Hamas Hamas nag ñoom ñooy branche armée bi ñoom moom ñoom ñooy xeex bu gis nga jamono ji sax xeex bi am daanaka ñoom ñoo ko jiite wala boog ña nga ca biir saf sa sàpp muy waa Hamas yooyu lance roquette yi ngay gis nu koy lancé mu jëm Tel Aviv ci ci ci ci ci bàccu Israël ba waa Hamas ñoo koy lancé donc bu xeex jotee danañ taxaw xeex waaye bu négociation jotee kat am nañ beneen kuréel goo xam ne mooy waa Fata te Mahmoud Abbas jiite ko ñoom ñoo yor rôle boobu noonu pour négocier waxtaan ak gars yi tey ni ko ñëpp waxee rek mbir yi moom yaakaar naa toog autour d'une table rek moo koy wax moo koy faj. leneen lii li waroon a am te amul mooy manko jullit ñi da cee feeñaat seen ñàkk déggoo maanaam seen ñàkk déggoo seen ñàkk nekk benn waa ils sont d'accord sur le désaccord loolu buñ ko bàyyi xel mukk désaccord boobu na tey luñ luñu lu ñu dal rek mën nañ ne moo ñu ko jural yaakaar naa loolu vidéo mu dugal sànq Ousa Tayib Socé mi ngi ci wax lu mel noonu imam Serigne Jabel wax na ko professeur Abdoulaye Ndiaye wax na ko donc mu nekk lu am am solo kon daal pour bañ a guddal dañuy ubbi antenne bi képp ku am laaj boo bëgg laaj nga indi ko képp ku am contribution boo bëgg a indi nga ñëw def contribution bi ginnaaw bu ñu santaatee bu baax nag di gërëm suñu ñaari intervenant yi ñu amoon tey eh, di leen bu baax a baax leen gërëm ci turu daayira génération soppee mooy jëwriñ xam naa dañuy jéggalu ci waxtaan bi ni mu demee ndax dañ ko programmé woon dañoo bëggoon dugal Serigne Jabel Ka imam bu duggee def waxtaanam ba noppi ñu doog a dugal euh, Ablaye professeur Ablaye Ndiaye waaye bi sëriñ Jabel di dem di xéewlu di reer si laa jokko woon ak professeur ne ko bu dee yow mun nga dugg comme ça boo commencé Serigne Jabel bu dikkee moom mu xaar la far professeur yéex a dugg xam naa dafa désactivé woon connexion am doon def vocal bim mu activé waatee connexion nag si la vocal am yëpp tegaloo bu ngeen xolé def vocal yëpp dañu ñëwëndo en même temps bon ma bañon yak dynamique bi mu nekkon ma bayilé mais ñi déglu mom bu ñu am déglu bu neex dañuy déglu parti par parti dañuy déglu première partie bi li sëñ Jabel def ba fi mu yam ba fi vocal yam bu ko défé ñu déglu ñu waat li professeur Ablaye gay doon wax su ko défé yaakaar ci lay ëpp ci lay ëpp njariñ dal wa di ñaan aussi ñi nga xam ñoy def montage émission yi sëñ jaajaloo wala sëñ morlo ñu défé ko nonu nañ jël nañ ko monter par parti par auteur li sëñ Jabel wax mom lañuy def première partie bi li sëñ Ablaye indi professeur su ko defé lolu ñu indi ko ci deuxième partie bi yaakaar naa su boba ki ini dina am une ligne de conduite manam fluidité bi dina xam idée yi ni muy tégalo par auteur dal wa lolu ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ci bu ñuy def montage bi wa ñi ngi santane ñep di gëreem ñep di wax ne kon ubbi nañ antenne bi képp ku bëgg dugg rek mën nga dugg inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa innalillahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. sering Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di la ñaanal di ko sàkku si yow di la jaal sa soxna si nga xam ne moo wàcc liggéey ñu ko ñu la koy jaal di ànd ak yow tiis wi di ko ñaanal suñu borom njéggal ak yërmande yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xale xare ci aljana ya gën a kawe yàlla na yàlla yàggal saraxam seen loxo yàlla na ko suñu borom atte ci yërmandeem yàlla na ko suñu borom atte ci yërmandeem yàlla na ko suñu borom atte ci yërmandeem waaw ñu ngi leen koy jaal bu baax a baax di ànd ak yéen tiis wi macha allah yow moom jàmbaar nga na ci kaamil bi nga xam ne dañ koy jàng ci daayira bi saa su ne rek yaa ngi ci taxaw bu baax a baax yow ak su soxna soxna awaloo xam naa mooy sa ñaareel waaye jàmbaar ngeen loolu ci kaamil bi ñu ngi lay jaal soxna si di nga ñaan suñu borom jéggal ak yërmande yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yi gën a kawe ci barakati ahmadul xaddim barke Baye Sam ngeen koy jaal baax a baax di ànd ak yéen tiis wi di leen masawu baax a baax a baax baax. waaw ah, effectivement noonu laf fa noonu la fa demee sax même kii noonu muy euh, ñaari kuréel yooyu nga wax bi ci kuréel bi njëkk di di kuréelu Fatah boobu moom moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko créé euh, Yassir Arafat baat bi bon moom tudd noonu Abdourahman la tudd baayam tudd Abdouraouf Yaasir noonu Yaasir Arafat maanaam Hammaar ibnu Yaasir bi mu créé kii boobu parce que moom dafa mos a xam nga Palestine moom fii la juddoo Égypte Yaasir Arafat tudd naa ci Québec sax mais mm, dafa mos a comme esprit rébellion ndax loolu moom dafa xaw a yàgg na ci ci ci ci xeetu yahud muy banu Israël esprit rébellion moom dafa xaw a yàgg ci ñoom mm, daanaka bi muy xale. Euh, yahud yi nekkoon Égypte seen fi ñu nekkoon dafa daan dem lu bëri parce que ñu daan ko ko tere euh, doon amoo problème sax ak papaam euh, xaw a xaw laal vie privée ko xaw a laal moom moo créé boobu noonu Yaasir Arafat bi ñu ko bi ñu créé loolu li indi turu noo ñu koy wax Yaasir Arafat ndax yaakaar ne dina am njëriñ tuuti pour leeral bi dafa am. Euh, saxaaba bu ñoo Ammar ibn Yaasir mooy ki njëkk a dee ci góor ñi ci ci ci ci mooy ki njëkk dee ci góor ñi ci islam Ammar ibn Yaasir moom amutoon doom bi ñuy créé loolu ñu ko àndaloon ñëpp ku nekk amoon nga doom te arab yi dañuy am dàkkantal bi ñuy ut surnom nag moom ci la jëlee turu saxaaba boobu mooy Ammar ibn Yaasir ñu koy ci ñu fekk bi muy nekk xarit danañ ko ooyee Yaasir Yaasir mm, baatu arab la li muy tekki mooy lu yomb. léegi na moom mu jël waaye nag bi mu kii bi muy surnom moom la tànn moom Ammar ibn Yasir moomu ñu koy naan naan Yasir Arafat Yasir Arafat mais boobu maamam la Arafat boobu moom moo créé Fatah boobu ci octobre mille neuf cent cinquante neuf euh, ànd ànd àndagoon seeg ku ñuy wax euh, Khalil al ñeneen euh, ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo créé woon loolu. Euh, même euh, Hamas boobu noonu après moom bokk na ci ci ci ñu ko ñu ko créé moom Hamas moom ñu ngi ko créé moom it mille neuf cent quatre-vingt-sept ci lañ créé loolu waaw mooy comme li nga wax noonu loolu rek mooy moom maanaam daal euh, teg ko ci table bi rek waxtaanee ko mais xam mu mën nekk foog mu am arbitre te arbitre nag mooy jullit te comme ñun jullit ñi bi moom tur bee fi ne rek mooy loolu daal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yal na ko suñu borom subhanahu wa taala yërëm te jéggal ko xaaree ko àjjana te oyofal ci ko ma masha Allah li nga wax ci moom rek sedd na xol soxna dëdd àdduna ñu gërëm ko même boo ko waxutoon sax nit ñi dinañ ko dinañ ko xam ndax la fekk nga dugal ko ci groupe bi rek di nit ñi ñaanal ko loolu rek duñu xalaama la bi wane ne ki yàlla na ko sama borom subhanahu wa taala gërëm jéggal ko ay retraité mboolem retraité boo xam ne def na ko yàlla na ko sama borom jéggalaay bu mu ñëm ci jéggal ci def ko muy tiyaaba boo xam ne def ko koy fay ndax moo ne baddillahu sayyi'aatim ahsanaat ci alxuraan am na ñoo xam ne su ma leen jéggalee seen retraité dama koy soppi def koy tiyaaba fayaat leen ko yàlla na ko yàlla boole si ñun teeroo ko ci àddina ñu gën a kawe waaw sëñ Jabeer macha allah ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax waaw tegu na ci gëstu bu kawe bu gëstu bu leer wax dëgg yàlla waxtaan wu ama am solo nga def tey waaw tàmbalee ko nag ci histoire waa remonté ko ba fi mu yegg si waaw macha allah macha allah waaw mën nag damaa jàpp ne ñaari kuréel yooyu moom lu war la sax mu am lu war la mu am muy Hamas ak Fatah waa ak taxawaay bi nga xam ne Yasser Arafat taxawoon na ko xam nga Yasser Arafat moom militaire la te ni nga ko waxee dafa yàgg nekk maanaam révolutionnaire ñaari kuréel yi seen pësuñu woon noonu dafa meloon ne benn rek waaye bi ginnaaw bi mu demee nag ba Mahmoud Abbas ñëw daanaka si ngay gis ni parfois day am sa conflit yoo xam ne day am digg biir am bi biir si seen biir ñoom xam nga léeg-léeg nga gis tey fata ak Hamas ñu laale laale gu metti laale gu metti partisans yi nga xam ne dañoo féete Hamas eh, ak ñi nga xam ne dañoo féete dañoo féete Fatah ñu laale laale yu méttee métti daanaka mooy booy xool mooy Israël euh, dafa dem ba ba def Palestine daf ko xaaj ci digg bi tey booy xool bande de Gaza côté bañ nekkee ak ñi nga xamante nii itam ñoom ñoo nekk ci ci ci beneen wàll bi ci côté Cisjordanie bi noonu dafa mel ne dafa mel ni yàlla ak yàlli daal bu ma koy mën a wax ci wàllu ci wàllu ci wàllu nekkin ci wàllu situation parce que booy xool dañ naan la euh, côté bande de Gaza bi ay extrémistes ñoo fa nekk te booy xool yemul foofu rek euh, maanaam conflit dafa ñoom dañoo am bras armé toujours nag Amas moom incarné mais Hamas nous boy xol lu bari Iran da len di ak surtout Liban Nous euh, ki ñu nek Liban ñu tuddati euh, nord Liban bi euh, mouvement bu fa nek euh mais ñom aussi dañuy jappalé bu baax wa Hamas wa Hezbollah wa Hezbollah wa Hezbollah Liban bi dañuy jappalé bu baax wa Iran aussi Iran aussi dina aussi jàppale ci armée surtout par rapport ak ni défaré defaree roquettes ak lance roquettes ak yoy Iran mo leen ci mo leen ci formé bu baax mais dama japp né conflit bi fimu tollu il faut mu am lolu il faut mu am les deux dimensions il faut mu am la dimension militaire mais également la dimension politique ou stratégique dimension stratégique vous bu waxtaan amé mais xoolal ñaata résolution ak ñaata waxtaan mo am bi conflit bi amé ba légui te teewul ba léegi jusqu'à présent heure bu ñu demee ba tëgg ay résolution ba ne d'accord nañ Israël moom mooy xëtt résolution yooyu te communauté internationale bi war a jóg ñu ne ñoom ñoo am liberté ñoo am autorité ñoo am puissance su atte ñoom souvent duñu atte lu Israël wax dañuy négocier ak moom rek te tey bu doon beneen réew la danañ mobiliser wu dal seen kaw mais nag maanaam affaire bi dafa xaar mu ñëwaat ci beneen vocal maanaam affaire bi dafa garaaw moo tax ma doon wax enjeu géopolitique yi parce que tey bu doon beneen réew moo ko def communauté internationale bi yëpp dinañ jóg dal ci kawam mais tey Israël dañuy dem def ay résolution <laughs> mais xoolal frontière 1947 yi gars yi waxoo ñu demaat 67 ñu defaat mais ni ko professeur Abdoulaye Ndiaye waxee sànq rek conflit bu am rek Israël day gën a dominer Palestine maanaam di gën a jël territoire bi maanaam di gën a occupé tey dañ dem ba yow sa réew ñu fekk la fa yow réew moo xam ne yaa fa nekkoon naturellement yaa fa basé wu woon am ñeneen ñu ñëw mais li nga wax peut-être ñëwoon nañ jaare nañ ne ñoom dañuy ñëw pour def agriculture dañuy ñëw pour def bay nga jox leen dagga leen ay suuf ñu bay dem ba mujj am doole ndek li ñuy def bay yépp ñoom militairement militairement ñi ngi formé wu mais aussi ñi ngi nuyé ay alliance ak ñoo xam ne yow say noonu lañ buñ ko mën a tuddee noonu muy les européens ak les les américains en particulier nga xam ne ñoom ñoo leen doon formé ba pare ñu am benn mouvement international boo xam ne seen seen seen siège diggante Angleterre la woon ak ak États-Unis nga xam ne gars yooyu aussi dañ dem ba am alal yu bare baree bari ci wàllu mbay parce que ki ji ki sioniste yi loolu moo tax ñu naqare xeexal dañoo c'est-à-dire dañoo riche dañoo am alal ba pare dañoo am xam-xam maanaam xam-xamu àdduna dañ see dañ koo am moo tax parfois ñu naqaree xeexal tey da ngay dem ba dañ am lobby ay lobby yu am doole moom lañ am États-Unis moom lañ am Europe moom lañ am Angleterre moom lañ am Angleterre effectivement moo nekk biir Europe donc ba tax na tey enjeu géostratégique yooyu moo tax tey Israël lu ko neex na ka def te du mujj fenn te mais Israël xam nga Israël ab réew mu ndaw la Israël tey espace ba ñu occupé mais ñi leen wër ñëpp leen ëpp mais dañ dem ba napp leen puissamment ñu toog armé wu ba nga xam ne tey gaa yi gars yi amuñu fi di leen song xam nga am na benn année 1967 li ñuy wax la guerre des six jours professeur Abdoulaye Ndiaye ñëw na si sànq mais Syrie mi ngi si woon Égypte mi ngi si woon Jordanie mi ngi si woon mais bi ñu dikkee Irak sax mi ngi si woon mais bi ñu dikkee ñoom ñëpp mais Israël da leen door en six jours ñu daw o début sonal nañ ko mu reculer waat mais ba mu dikkaatee quatre pays quatre pays arabes ñu sot ko mënaluñ ko dara quatre pays arabes ñu sot ko luñ ko dara ba mujj ko ñu dawaat mais liñ fi njëkkoon def am nay jamono dañu dañ ko defoon embargo pays arabes yëpp daal di mobiliser wu embargo ko bàyyi ko lijjanteetuñ ko jaayetuñ ko jëndatuñ tëjal ko seeni frontière mais après Israël bi mu xamee ne day metti moom mais dafa am yoo xam ne woon na ko mais daf ko mujj bàyyi benn benn am na am na am na am na am na parti yoo xam ne occupé woon na ko si Jordanie bàyyi na ko am na parti yoo xam ne occupé woon na ko si Syrie bàyyi na ko am na parti boo xam ne aussi occupé woon na ko ci Égypte mais daf ko mujj bàyyi parce que embargo bi attanatu ko woon je pense que dynamique boobu aussi gars yi waroon nañ xool nan lañ koy mënee ñu xool ba nan la ñuy def xeex bi certes ñuy négocier mais aussi ñu am ay ay loo xam ne dañ koy privé Israël mu mën ko am man je pense que loolu aussi ay stratégie la yoo xam ne réew arab yi tey wala réewu jullit ji bu fekkoon déggoo nañ ànd dañu waroon a àndee tey Israël waru leen mën a të même bu fekkee États-Unis moo ko soutenir. ah maanaam xam na problème bi mooy tey comme li ngay wax nii yëpp technique la xam-xam la mais xam nga tey dafa am xam nga ku xam conflit eh, doomu baay maanaam. xam nga boo gisoon boo gisee même ñi nga xam ne histoire bi xam nañ ko ku ci mel ne seen Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum euh, mës naa seetaan benn man man daanaka ñooñu man dama leen di dama leen di seetaan euh, ay seen Cheikh Tidiane Sy Al damay déglu seen seeni waxtaan comme ça yi yooyu am dafa mos a wax mu ni comme histoire boobu waxtaan rek maanaam tey même comme ñi nga xam ne xam nañ histoire bi dëgg dëgg dëgg dëgg histoire bi. koo ci wax xam nga lu maanaam euh, pour mu wax la waxal la histoire bi sax da koy jafe <laughs> ndax lëj bi mu lëj ak it euh, <coughs> xam ngi ñu xam